asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan Xass TV <laughs> sëñ bi maa lay nuyu di la ziar maa ngi lay nuyu ziar Diop <laughs> kat ah waaw waaw waaw waaw waaw waaw <laughs> waaw ziar eh ça va ji waaye mais sëñ bi tey damay ñëw si commentaire yi ndax émission bi jàll am na solo trop kii mu ngi tudd El Hadji Malick Diop. nee na ba xam xool nga programme mu Mamadou Dia ba biir. Ah, man te maa jox biir sama carte sax benn yoon. Ah. ndax tay gisatuma lu ma xam daal. Ah. <laughs> jaw ginnaaw bi ñu la nuyoo. di di santaat yàlla. di julli ci yonent bi. di di di di ba li ñuy wax rek comme dañoo nekk ci weeru xam ni. weeru yërmande la weeru njéggal la. dañu profité it di baalu ak ñëpp di ñaan yàlla it eh, ku ñu amee la ak it nga jéggal ñu te am nit matul ay woote woote ay bisi bis doo jot xaas daan ba soo du gis xaas xaas ngi ciy baalu ak ñëpp deuxièmement jaw lii lay war a suuli xaas yorul numéro Tigo xaas amul Facebook xaas yorul Tigo benn femme Angleterre rek envoyé tit na ma audio te jot na dugalal waa xaalis waa ji envoyé ko ay sarax naan ko def naa ko ba pare nit ñi nañu yeewu numéro Ablaye Diop Khass je te répète ñaata numéro laa amoon profité dindi yëpp sax ngir bañ yu yooyu moo tax ma ni la sama numéro boo ma jotul bàyyil ma message sama numéro mu ñu nekk 77 711 24 39 loolu kenn mënu koo falsifier 711 24 39 c'est mon numéro personnel ku ma ci woo di nga jot jaajëf waaw waa ji nga ni def nii ndax xool naa programme Aliou Mamadou Dia bu Pire dañuy profité di nuyu responsable moral Seydi Mouhamadul Moustapha si di wax rek di wax rek gàncax la ko suuxat des fois nga gis garab garab war a jur doom bii nga grefe ko mu jox la doom ba nga greffé parce que la la mu xeeñ doom boobu la jur ki tànn Aliou Mamadou Dia Aliou Mamadou Dia du caaxaan kan moo ko tànn ki Serigne Cheikh jiitaloon ci lépp kan moo ko tànn mooy ki nga xam ni intérêt boppam du ko doxal intérêt personnel du tax mu dox intérêt réew mi rek mooy tax mu jug mooy Seydi Mouhamadul Moustapha si defe naa côté boobu kon jàpp naa ne Serigne Moustapha Sy du tànn n'importe quel kii kon Serigne bi Euh, xool naa ko bu baax a baax kon ci gàttal parce que ka tapp Aliou Mamadou Dia laa xam te xam naa ci moom lii fulla fayda xam naa ci moom it ku ko doyul du la tànn du tànn it ngir dara moo tax côté boobu macha allahu Aliou Mamadou Dia yàlla na ko yàlla defal jàmm. am nga beneen te macha allah dinañ ci xuus xuus. te aussi comme jaw adhéré na jaw moom. mu ngi woon ci Anta Babacar Ngom mais waaw. nee na léegi mu ngi ci Aliou Mamadou Dia nekk nga ci ku mat ku ku am dignité macha allah des fa incha allah. ah kon jeex na ok euh, sëñ bi Diomaye Faye président Ousmane Sonko président ah, ak euh, waa benn bokk yaakaar sëñ bi xeexante guerre des boobu euh, jaaxalu la wala amul dara loo xam ne mu ngi koy jox. bon làmb su ma demee bay bëri damay bëri ka ma méngool doole man laa Ablaye doon wax gone bu la tooñi da koy tëb dóor bàyyam mu xam ne doo moroomam dégg wax bi yaa ngi fi gis yoo xam ne ay ree lay jàpp Ousmane Sonko la may faral di wax chaque fois chaque jour Ousmane Sonko jëmm la bu yàlla préparel boppam def ci moom loo xam ne moom ci jëmmi boppam xamul li yàlla def ci moom ndax da koy waxal boppam da ngay dégg mu la moom ci boppam des fois dégg nga ba mu wax policier yi ne man mënuma ci dara yàllaa ko def ci man kon xam na ni lii maanaam sirru yàlla la yàlla nag yëfam dafa doy waar hmm? ndax weer waa ngi nii moo génn woorloo ñëpp kuy jullit kon xam nga ni yàlla du moroom waa léegi weer bi mu mën a téye waat at génnewaat ko te bu génne jullit yëpp woor waaw kon yàlla nag jël nit def ci xolo xolu nit ñëpp du dara ci moom Ousmane Sonko loolu la ko yàlla defal Basiru Jomay nag yàlla bu ko cet dugg laa koy ñaanal ndax damay wax ni nag eh, nañ ko nañ Pastef dafa am cat Pastef dafa am cat Pastef dafa am cat cat bi nag dafa mat a moytu xam nga eh, dara bu taxawee lépp réer uti ko ah bopp bu mel ni Ousmane Sonko nag dina jafe waaye heureusement Sonko ngi ci ginnaawam gis naa it fu muy dem mu ngi dem kon dañuy kon dañuy jàpp ni dañuy jàpp ni dërëm bu génnul gaal gi la kon Sonko yee jomay jomay Sonko mooy dërëm bi génnul gaal gi kon nag ah yàlla na ko seytaane yi bàyyi dërëm beeg gaal gi ci biir gaal gi waaye bu ñu ko deful it mara day taali kon nag ñu ngi ñaan yàlla lool parce que daf ko wax wax bu am solo aussi ci li ci boo dee déglu kee xamal ko ni su ma demee ba noor laa war bàyyi politique man nag damay wax ni nit man ci li wax rek laa mën a jàpp parce que la ci biir xoolu nit nit xamu ko moo tax ca la mu wax yi dama cay basé man en tant que jullit kon jaw euh, di masaw li dal waa géej waay fan yi organise seen affaire mais loolu mbiru yàlla la mooy ku nangu lu yàlla dogal olof dafa doo sonn doo jaaxle <laughs> waa géej waay yow baadool la <laughs> ah lekk xaalis jàmm nekk naa ko Sonko fi de. <laughs> waaw waaw ah lekk xaalis naa ko kii ah, yàlla baax na eh, sëñ bi. Eh, tey damay ñëw si ñetti question rek benn bi moom damaa gis lu ma yéem sañ ma ko sax wax mooy si mbiru nitu guddi waaw waaw kakaa daal du ma ko sax wax mais daal ñëwul ma ah ah, ah ma eh, wax jox nga ma si ndigal ah bisimilah sëñ bi benn maire ñëw na fii am problème mu biir am nitu guddi boo xam ne ne ni nañ boo moo ne si moom nga am loo ko jox mu dem sangoo ko su ma juumul mu teg si benn fan ñaar ah ñëw woola ne la daal li mu yaakaaroon ne moo ko doon téye kooku daa mujjee faatu sëñ bi man loolu ma tiital maanaam wa maanaam ki ko téyewoon daa dee daa faatu dama mbiru dee man dama see xajul <laughs> yaag ñooma mbiru mbiru nitu guddi nga dugg jëw mbiru guddi nga dugg xam nga xam nga nit te xam nga kaay wax te xam nga tey non da ngaa dugg ci loo xam ni da ngaa duwaa moo tax wax naa la déggeen sumeer ci télé lañ ko attaqué te gis nga la ci xew jaw dugg dugg dugg ci loo moo taxit dugg nga ci loo xam ni waaw luñ la wax rek nga wax ko luñ la wax la nga wax ko ah waaw baax na xam nga lii moo am ci àdduna yàlla dëxëñee loolu àdduna dëxëñ ko ci nit ñi ku ci nekk mu boole la ak sa benn jaw boo teenee lu lay tiim boo toogee boo taxee loo ci loo ne hmm, booy noyyi looy neeyi loolu mooy lan waa léegi ñetti yooyu ci ku dëxëñ lan moo sax ci biir suuf rax leen jaw nga gis ñeent yooyu tënk nit te bu ci nekk di dox ànd ak nit ndax asamaan si bu xëyul leer mënoo génn dem ndax yaa ngi ci lëndëm kon mënaguloo jóg kon nit la ko tiim am na solo ci moom ndax pourtant moo tax ba di di leer wala muy lëndëm lii boo ko taalul defe naa bu dul bëccëg nga génn ci biti ah dinga nit de ndox mi yaa ngi koy soxla ci boo maree te xamoo fan la sam degré mar toll léegi imagine nit buy naan moment bi li moment bi muy naan li mu yëg ci yaramam lan la ak nan la ndax yaram li muy soxla ci ndox te bu ko ko nit ki joxul mënul am jàmm kon lan mooy problème bi moo tax nit mënoo koo génne ci ndox ça moo tax ñu ne la booy takk nit tey mu jafe ci biir ndox nga dugal mën a dugg pour takk ko parce que da dugg ci ñaar ñu bokk man da ngay gis pour nga jàpp dañ naan la demal nga fanaan ci ndox parce que fanaan boobu ci ndox mooy yoral nga mën leen jàpp. bi jaw da laal ci nitu guddi nga laal ci lu am solo nga laal ci lu doy war nga laal ci loo xam ni dafay dellu ci gént te boo tëddee gént ko ngay nitit nga war a bàyyi sa xel Sénégal da ngay gis kuy tëdd di gént mala rek wallahi bu xëyee foog ni géntul dara nit ki waroo boo sa xel lu mu doy waar doy waar nga war a mën a tëdd ba ngay tëdd yaa ngi tëdd léemu nga war a tëdd dara gént mais loo nite di di tëdd war ngaa xam ni yow lu leeree nii ñu war la nopp si jaboot bu lay topp war la muus bu ñuul bu lay topp loo gàtt gàtt gàtt xel war ngaa xam ni yaa quelque chose war ngaa xam ni tey lii di signalé lii di def signe mais am na lum lay jàngat li lay topp guddi mooy xëy ñëw ne asalaamaaleykum ana jaw fekk boobu topp na ci guddi gi de mais dafay ñëw xool si ba xam jaw muy mu toppoon jàpp na ko wala jàppuñu ko parce que jaw tëdd na wala tëddul boo déggee mag ñi naan nit bu feebaree timis bu ñëwee di ko seet bul nangu ñu koy ñu gis ko te buñ la laajee laajal mais Sénégal fii xool heure bu ne ngay seet nit ñu naan exil mu ngi ci kaw amaana boo moytu lii la topp ci guddi gi moo xëy di laajte si ba xam diwu jàpp bi ma ko jàpp existé na wala des na pour guddee mu mën a doggali mooy ñi nga xam ne daf leen di jàpp en général ba sonal leen mais day obligé tëdd ci seen yaram ba fees ci dellu moo tax pour nit ki di wax bari na ñoo bu ñu feebaree bu ñuy wax boo dëkkee seen ndox sax dañu dañuy dañuy sonn pour wax bi génn day jafe parce que boobu li ci seen dënn àttanatuñ ko dañuy fatigué deuxièmement ñu am lu ñu la taamul ci loolu boo déggee mag ñi di la wax nekk xuyét ko bu timis jotee taalal dara ci biir néeg bi euh, bul doxee rek nga ñëw dugg noonu ak lëndëm parce que danger bi ci nekk moo tax ñu wax parce que nekk na loo xam ne tey par exemple biir néeg bi lépp a ngi préparé wu te xamoo lan ak lan la parce que jàppal ni yàlla nekkul yow rek la bind weñ a ngi nii di naaw di taf sa mu ngi ci biir néeg bi waaw lan moo waral mu war laa sonal ba nga di da ngay garab yow mais xam nga yu gën a danger yow mu ngi ci biir néeg te gisuloo ko salle noonu mais si li gën a yéeme da nga dugg salle de bain fekk seetoog lépp a ngi ca fekk yow yaa ngi sanguloo jinne moo tax jigéen ñépp am rab jigéen bu ci dugg ci duus bu génnee buy laal jëkkër ji xuloo bay tàmbali parce que moom mooy pour mën na mën na tranquille mais buy dugg ci douche bi di yàgg rek rab di ko dugg day génn rek xool la jéppi la te du xam li la jéppee lu comme ni mu la mënee xabtal nga mën a wéet fee di foowee sa bopp te doo ko yëg boo paree jéppi sa bopp ba doo bëgg dara ci sa bopp bu subaa mu defaat la ko nga dem defi ko mën dara parce que ku loolu bu la dalee ça veut mooy yow faible nga faible ba mare day taali parce que moom li muy yëngalee ci sa yaram ba man laa def loolu noo loolu ja bañ doon jullite ko gën ndax mooy yaram bu takk rip ak sobe deuxièmement nga ni rab am na wala amul jaw nga tëdd guddi léemu gént di sëy ak góor boo xam mooy kilifa wadul kili wala du kilifa nga gis sa sëyukaay bi nga xëyee da gis ni yow mii nekkoon nga ak dara loolu lan la kon kon xanaa loolu budul budul lan la lan la lan nga sa doom nga mën koo yor taxaw di wax ak moom di mu lay saaga di la jokkar li baat ba mën a jël weñ ni la lay jam mais loo nit di nit di bul topp kooku nga war a xam ne lii yaa quelque chose sa doom ngay wax moom di lay ciibat te xoole c'est simple moment bi muy say boo xoolee bët yi buy xoole yow da lay ba mara di lu ma am am kersa moment bi mu ko dalee bu la fixé nga mu ci sa borom bu dee góor nga gis mu jàpp ko par exemple wallahi yàlla xam na ko une deux trois mook jabar ja duñu am jàpp jabar ji da koy soof mën na ko yërëm léegi léegi léegi léegi jabar ji teg ko loxo léegi léegi mu jéppiwaat ko léegi bu ko ñaanee dara di ko def rab bu bon bi ci moom sax du bëgg mu def ko day génn pare pourtant waroon naa koo mën a may du xam sax lan mooy téye loxoom la est-ce que yaa dégg baax parce que tey wax naa la fii ni la rab ci looy dugg da ciy jiitu liggéey mën na la ci jiitu jabar mën na la ci jiitu lépp loo xalaat ci kaw suuf di ci teg sa loxo këyit rek lu mu a doot man na la ciy jiitu parce que dafa am ñoo xam seen rab bon gi mu bon moo tax uniquement dafay wax ñii ñu tekki wala ñii duñu am dara léegi ñii duñu tekki bi ñii duñu am dara ça veut nag moom fi mu koy teg mooy yow léegi yow tey jaw ñàkk fayda mën ta dara taxaw ni day def kémta lay kàttanam pour doo tekki day def kémta lay kàttanam pour mu metti yaa ngi dégg bu baax yow mu man laa njatt fi mu la njatt bu guddee nga bëgg a julli mu dugg la sa yaram bi di metti ngeen di xaaral ma tëdd tuuti far jaare fa nelaw nga war a julli fajar mun la déedéet doo julli def la yaram buy diis ba maare de taali mooy li ma naan la am na ñoo xam sax guddi ñu feebar bu ñu xëy wér bopp buy metti biir buy metti yaram bu diis wala yaram buy tàng wala tànk yu ruux parce que bu dee bu bon dafay ñëw rek roof la ngelaw léegi nag yow ngay fudd muy neex rek yax yeeg lépp du neex fekk boobu ngelawu seytaane la léegi biir ngelaw boobu moo mën a transformé xeetu feebar bu ko soob ci biir yaram te bu demee hôpital bu ñu xoolee boobu la ñuy gis mooy feebar bi nga xam ne hôpital bu ñu ko trouvé gis ko bu ñu la joxee garab boo ko laalee du wér mais ñaat mais ñaata feebar ngay dem hôpital bopp bi metti ñun la garab bi boo ko naanee bopp bi arrêté nga naan bopp bi nga naan ko bopp bi gën a continuer y a quelque chose àdduna moo toll foo xam ni nit ki moo war a bàyyi xelam gis nga jaw olof dafay wax ni daw ca ba ngay ami tànk waaye doo bàyyi ba ñàkki tànk ñu la yëkkati pour nga jéem a daw mënul sotti toujours ma ni la jaw nit ñi nañu dellu ci kaara nge gis nga jaw rawxaan c'est très important sarax c'est très important mais sarax lan la jëmmi jaw mu taxaw xamoo fu jaw war a dox dem nga ñëw nga koy woo te jaw mi ngay woo xamul foo wuyoo mais jaw fu mu dem day tàndatu rek waaye mënatul dem mooy kii sa rawaan di ànd ak yow te xamuloo saraxam c'est très dangereux te yow jaw tey léegi xam nga jaw tey ñaata xeetu rawaanaam yow moom loolu xam nga ko léegi rawaan <laughs> bisimilah gars yi tey gars yi dañu maa siixal nag attention tay damay faj de <laughs> ñaata xeetu rawaan moo am ñeent ñeent moo am sëñ bi ñeent moo waaw bisimilah cëm barki rasul ba gars yi xam ne li ma doon waaw suuf ndox ngelaw mm. safara ñoo am. ñeenti léegi bu ci nekk lan mooy taxawaayam ak signe bi bu ci nekk tey kii bu amee lii. Hmm. kii bu amee bii. waaw mbiram naka lay doxee naka hmm. lay naka lay doxee. bisimilah. ah. <laughs> bisimilah. xam jaw. yaa xam nga déedéet. xam nga dama ne la. tey lii da nga koy natt ku ci nekk ci sa bopp. Hmm. boo ko doonee xamal ni moom nga. mooy benn. bu sa rawxaan nekkee suuf suuf xam nga moo daj àdduna te lépp mu ngi ci kaw suuf mun nga am lu ne ci kaw suuf nag waaye wërsëg du waaye bu ñëwee dina toog du gaaw waaye bu ñëwee day toog maanaam mën na yeex lool ndax tokk tokk lay doon day mel ni garab boo sab ci suuf di ko roose ko roose di ko roose ba mu mooy bu sa rawxaan nekkee suuf noonu nga koy xamee mooy ki nga xam ni même li muy lijjanti ñaari yoon lay def ñaari yoon la koy kii maanaam dafay ñëw da ngay buy lijjanti kayit mën na dem benn yoon ñu dàq ko mais deuxième ba bu day am bu bu amul ba troisième ba bu tantee dafay bu sa rawxaat nekkee ngelaw sa am am day gaaw waaye du taxaw lu ñëw day xanaa ngay def sa saraxu rawaan tey lu ñuy ñëkk lu ñuy xëccante bu sa rawaan nekkee ngelaw ma jël ko bala buñ doon jaay waaye yow jàppal yow mi sa rawaan nekk suuf mën nga taxawal dara man ma ëpp la wër sa fuuf te du ko taxawal mooy ñi nga xam ne sax bu ñu commencé woon tey bâtiment bii du àgg foog mu amaat tolof tolof ba ca kanam ñu door di defaat mais pour ñu tëb rek mu ni bërët mënul sot rawatina xamuñu seen saraxu rawaan du jàll looloo waral kon bu sa ñu ni la léegi sa saraxu rawxaan boo ko defee léegi sens bi mu lay dimbalee mooy parti bee mu lay xañ day exister ci côté bi pour mu man laa dimbali est-ce que dégg nga wax bi moo tax ñu ni la saraxam mooy tey da ngay gis garab yoo xam ni gàncax ga fa sax bu ngelaw la ñëwee bu ne ko faaf day wadd ci suuf loolooy saraxam moo tax mu mën koo waddal ma laal suuf est-ce que dégg nga wax bi bu sa rawxaan nekkee ndox kooku macha allah moom it ci wàllu wërsëg ay jafe-jafe ay torof jafe-jafe jafe-jafe jafe ndox ku ne xam na ni juste te taxawul dégg nga wax bi parce que même liy ñëw da gis koo xam ni ci ni nga koy xamee sa simple nitu ndox dafay bëri jafe-jafe xam na ñu koy ne méngaleeg biddéewu yonent yàlla yonent yàlla ñuy wax ne bu la dalee di nga dugg kaso mbëm bu ñu lay rabaas nga fanaan da koy def parce que force di ko ñam waaw ah? ni nga koy xam nit la it boo xam ni dafay bari kersa nit la boo xam ni dafay bari kersa nit la boo xam ni du bëgg ku koy yuuxu nit la boo xam ni tey bu nekkoon ci biir mbooloo nii rawaanu ndox xam nga ndox tey fu mu jaar nga xam ne jaar na fa de buy taw nga fatu de bu nekkee ci biir mbooloo par force à la turam ca kaw lay jóg waaye jàppal ni loo yëkkati di ko ko yéen mooy bu sa rawxaan nekkee ndox ñu ne la léegi lan mooy saraxam loolu da jaw xam na ko xanaa acca bismillah hmm, bismillah euh, saraxu lan. su nekkee ndox jën. waaw jën hmm? jën jën waaw jën la mm-hmm. <laughs> ak xorom. xam nga xorom. <laughs> <laughs> foo fekk ca taatu ndox mu nga fa. moo tax ku sa rawa nekk boo doon xëccoog moom mu man laa dominer. parce que wax naa la ni xorom dafay xëccoo. xorom cin boo ko def mu soppi lafane te boo suukaree ba mu saf boo ca defee xorom soppi ko bu dee kaan it xorom bu ñëwee soppi ko waaw moo tax mu bari doole saraxu xorom mu des ban bu saraxoon nekkee safara kooku nag mooy gën a mare day taali nit la boo xam ne moom day tàng jër waaye nag waaye nag jàppal ni moom mare day taali ci wàllu wërsëg waaye xam nga lan mooy problème bi dëgg-dëgg wéeru ga wéeraayu yaramam moom ngay gis ñoo xam ne naturel wallaahi yàlla def leen di dimbalee ci lu ne mais dangay ngay gis ci fajo la ñuy dëkk hmm, léegi nag dama lay wax après cause bi li tax yàlla boole la ak rawxaan ak it boo bëggee sauver sa bopp sa jëmm parce que jëm bi dafa am lu ko accompagner tey ba nga tëddee di tey boo feebaree pour nit yëkkati la pour boo feebaree mënoo jug nit moo la mën a ñëw may la loxo nga nga jug bu dul loolu mënoo jug n'est-ce pas léegi da ngay gis rawxaan bi la accompagner léegi li koy dooleel dëgg dëgg dëgg mooy jëmmi sarax ba dégg nga léegi moo tax ñu la tey par exemple bu sa rawxaan nekkee suuf nga def saraxam bu sa rawxaan nekkee ndox nga def saraxam bu nekkee ngelaw nga def saraxam léegi dana la dimbali ci maanaam côté yi ngay commencé woon mën a perd yoo xam ne arrangé wu la ci sa wàllu wërsëg bu ñëwee du taxaw wala bu ñëwee génnaat ci sa loxo parce que même même euh, ci safara dafay indi loxo bu bët lu taxaw sa loxo du taxaw ak na ngay bëggee du sottee noonu te foo toll di ñàkk foo tollu di ñàkk mais nag loolu moom it mën naa laa delloo saraxam xam nga ko xëj ni bismillah <laughs> dama rek xam nag Diaw man dama bëgg nga nekk ponkal xaas ni nga may sonalee nii dama bëgg bis nga toog di ko toj wala nga toog ci biir sëriñ di ko toj loolu moo may arrangé te daf may neex dégg nga parce que wax naa la ko fii deuxièmement li tax boroom raw rawxaanu safara mburu baax ci moom bor ñam bu mu togg baax ci moom ndabu laax baax ci moom maara day taali parce que wax naa la ni mburu bi dugub la woon sax ci biir suuf safaraa ko togg moo tax nga mën koo jariñoo moo tax bu sa rawa nekkee safara mën nga koo génne wala ñam bu ñuy togg mag ñi loolu lañu xamoon ba xam heure ba waaye saraxu rawaan lan la altine alxamis lundi ak jeudi mardi dafa lëndëm mercredi dafa tàng aljuma dafa leer samedi dafa diggu dóom lañ koy wax dibéer dafa mat bu ci nekk ak saraxam saraxu talaata dafa lëndëm lëndëm bi bi lëndëm moo tax booy xeex wala ngay xëccoog sa noon wala ngay xëccoog sa noon saraxu noon bi ma la joxoon noon bi ma la looloo tax nga koy def bisu mardi saraxu coow mercredi aljuma daa leer am yàlla jox la rek ngay dégg samedi dafa diggu dóom baax na baaxul dibéer daa mat dégg wax moo tax sarax dafa am importance nit ki xam ko parce que xale day juddu nekk liir màgg nekk waxambaane après nekk mag voilà loolu la sarax di doxe dafa am ñoo xam ne seen sarax bi mu soxla ci suuf la war a wàcc bii seen sarax daa war a toog bii seen sarax dafa war a jug taxaw bii seen war sarax dafa war a tëdd jaw léegi nag ki saraxam war a toog nga jug taxaw boo ko saraxee day damm say ñaari tànk ci suuf nga jëm mooy ki nga xam ne dafa génne sarax léppam tëju est-ce que dégg wax bi ñaata nit ah bien sûr wax naa la fii ni la jaw Souleymane Diaw tey ba la nit di liggéey fekk nga génn sarax exemple la damay dagg émission ci yow laa mën a jël exemple koo bëgg ma jël exemple exemple waaw la nit di liggéey mu jël perkaal jël saabu néew bomb dugal Souleymane Diaw bi mu dugalee Souleymane jaw eh. ah fas nii Souleymane Diaw dama koy doot wala Souleymane Diaw dama koy liggéey dootul amati dara wala Souleymane Diaw dama koy liggéey xaptal ko ba foo muy dem di liggéey du fa am jàmm bu demee day xuloo rek rek rek rek c'est simple léegi nag boo defee loolu fas rawaxaanu Souleymane Diaw ni nii taxaw ci kanamam sa raxu rawaxaan laa wax de dafay def nii jug taxaw sa kanam xoolal fekk sëriñ ba koy liggéey tëdd na wala mu jox la liggéey ba boo demee jàppal ni perkaal bu ñu fas la ak morto waaye turu Souleymane Diaw doo ko fa fekk mën ngaa ko fa fekkaat jël na ko déedéet dina sa tur wa moom nit jug ni xaaral ma dem defi ko Souleymane Diaw dugg ca oto oto ba accident balaa ak parce que toujours sa rawaxaan mu ngi présent say activité rek ko sonal képp ku di bind Souleymane Diaw mu ngi mel ni ku la soxla rek wala téléphone day sonné nga wuyu léegi moom noonu lay taxawee ci yow fépp fu la waay tudd di jàmm jàll na fépp waay tudd safaan faj na ko loolu la rawaxaan di jariñ ci nit moo tax sa rawaxaan toujours sa raxam buy baax dalay da ngay tëdd gént nitu nit nit bi mu wan la ni moytul kii ci biir gént parce que wan na la ko ci gént mais sa na la léegi nag bu la dëkkee di sauver dëkk di sauver defoo ko léegi nag defuloo saraxam dafay wax ni kii amul xel parce que sarax bi ngay def mooy doon batterie bi nga xam ne daf koy chargé mooy tax batterie am tout le temps tout le temps tout le temps day nekk 100 pour cent 100 pour cent 100 pour cent parce que boo ko ne jàpp rek day leer daaj naññ léegi boo dul génne sarax bi jàppal ni pile bi day déchargé di déchargé dafay dem ba ampoule bi boo ko taalee sax du leer day obligé féete gannaaw bàyyi la ak sa jëmm moo waral nit kooku du am jàmm onk ci lay dëkk

léegi euh, may mhm. xam nga gént. lii moo am ci gént. te ñaar moo am ci àdduna. ñaar yooyu rek moo am ci àdduna. gént bii day taxaw. bii day toog. bii féete kaw. bii féete suuf. bi la féete suuf. mun na xëy nekk mbég ci yow. bi la féete suuf mun na xëy nekk musiba ci yow. bi la kaw mën na xëy nekk mbég ci yow bi la kaw it mën na xëy nekk musiba ci yow mooy boo géntoon tey policier ni la tap dooru bal war na la ne eh barxaam am na ku lay liggéey liggéey bi dal na la jàpp na la kooku signe boobu la la nga gént mu poñe la ñu la nit guddeeg lay dàq bàyyil xel nga gént boroomi tur yi tuk ten bari wër la ñu ne la ah yaa ngi nekk en danger ñu ngi lay fexeel kon kooku beneen yëf la léegi nag li danger mooy yow yaa ngi gént loolu ba pare tey nga ko gént wan la liggéey nit ñu bëri yooyu nga xëy dem ci sa liggéeyukaay te génnewuloo sarax xamoo ba xam fexe bi foofu la mën na ba a àgg sa nga àgg liggéey kay mën nga dem lu ñàkk fayda dal la fa wala musiba dal la fa loo xam ne maa redi tali am na ñoo xam ne yoon bu ñu jugoon di ko def tey dañuy tëdd gént sax yoon bi day am jafe-jafe dañ koy géntal seen bopp dañ ci dul bàyyi xel moo tax gént nekk lu am importance wax naa la fii ni la mbég ma jooy la nakkar ga ree la mbég ma yaa gént di jooy ñu ne laa ah, nakkar baa ngi tëdd yaa ngi gént di ree ñu ne la musiba baa ngi ñëw musiba ci mu déggal bii dafa wàcc kon mu ngi ci kaw naqar baa ngi génn bii dafa jóge suuf jëm ca kaw moo tax ma ni la bii ci suuf la bii ci kaw la kon dernière émission wasalaamaaleykum wa rahmatulah